mu ngi noonu mbokki bàyyi xel SBT amaan nañu mbégte ak kontaan ñëw fi nga xam si nii moom mooy Touba Thiaré wala Thiaré rek ah wala yëpp la seet si doomu jaamur nee nag doomu jaamur jaamur ca la waaye dafa mel doomu jaamur bii de dafa mel jaamur doomu jaamur ñu ngi lay nuyu di la siyaar di la wax déwénati baal ñu àq baal na waaw ñu ngi lay fay mas di la balaax di la baalu waa di nuyu waa Thiaroye gépp ak sama mafia yi mafia u kalmu bi mafia rond bi waaw di nuyuwaat waa Caaroy bu baax a baax a baax di nuyu sama baay faal bi di nuyu ASC yi ma sekk yëpp su mel ni ay penc ASC olympique de Minam ndox mi ASC moom sa réew ASC guy gi maa leen nuyu di leen siyaar bu baax a baax a baax waaw. macha allah tey ñi nga xam ñu ngi lay seetaan à travers SBT Média tey boo doon wax kan mooy doomu jàmbur ak doomu jàmbur euh, la moo ko boole ak làmb ci lu gàtt. waaw doomu jàmbur benn xale la rek bu juddoo caaroy màggee caaroy waa di góorgóorlu ci làmb waa nekk ak ay grand frère ñu teg ko ci yoon waaw may ñu ko dara tamit waaw doomu jàmbur daal doomu caaroy la bëri fu la waaw ci samay grand rek ku ci mel ni sama benn xarit bu ñuy wax doomu jàmbur numéro un kooku mooy numéro un bi Lamine Sarr ay tiijaan waaw ñoom daal ñoo doon nekk ci làmb mat di si nekk di ànd ak ñoom ba yàlla def tey xam nga rek affaire de affaire de deret la waaw deret bi yëngu loolu la. kon su ma déggee làmb danga ko doon. waaw à cent doon naa ko ci sama nijaay tamit waaw si ku topp sama yaay moom tamit day bëre ba tey jii day bëre mais ci àll bi la ne xam nga xam nga gars yi moom farataaluñ arène bi ñoom ñu ngi si àll bi rek waaw doon naa ko foofu moom. waaw mais à part loolu tamit mooy samay morom yi nga xamante ni foowandoo nañ ñoo ma njëkk ñoo ma njëkk a dugg si làmb ma di leen topp samay moroom samay grand frère ba léegi daal. wax tuuti rek sa jaar-jaar xale maam bi nga juddoo bi nga yaroo ndax jàng nga école ndax daara ja nga dem ah, ban niveau nga am ci wàllu jàng. waaw dew ma daara nag mais jàng naa jàng naa français français bi jàng naa si mais soriwuma si boobu sori tamit non paase naa paase naa fa. paas paas naa classe naan tey waaw ah, mais daal làmb daal moo ma yàqal sama lépp franchement parler non non dew ci nag. waaw mokkal naa si dara moom. waaw mokkal naa si dara. non xaw naa bari de war naa mat ay ay yooyu <laughs> waaw <laughs> waaw. <laughs> Ah, wax dëgg fa yàlla xam naa journée bi yëpp daal. waxtu yëpp mun naa see yaa mun naa koo jul te bu si nekk daal bu ma teree saar boobu door ma si doos ma si jaar. waaw loolu de mun naa ko moom. daa sori de. ah waaw loolu de moom yàlla def na ko. waaw xel mee xaw a neex nag. Ah. waaw. léegi ci wàllu nasaraan kon su ma déggee moom mën ngaa bind mën ngaa liir mën ngaa làkk. waaw làkk bi moom des na. mais mun naa bind lu ma ci bëgg a bind yi dinaa ko bind te loo ci bind it mun naa koo liir. contrat mën nga koo liir comprendre. mun naa koo liir mun naa tontu mun naa def lépp moom wax dëgg fa yàlla. ci wàllu waaw mbapat naa fi ma nekk ba pare mbapat naa Caaroy bi dugg naa Géejawaay bi mbapat naa Malika waaw jot naa dugg ci àll bi tamit waaw àll bi tamit jot naa ci dugg waaw. xamante ni boo leen waxee làmb leen bàyyi xel nga daan leen wala ñu daan la ku si mel ne kan ak man nag ñi ma maaseel bokk ak ñoom génération ba léegi ñoom ñu ngi si ñu ngi ñu ngi góorgóorlu si mbapat bi xëy na man sama fugu ak boo yi nekk sama booy yi nekk sama ginnaaw poussé ma yokk ma fit moo gën a yokkoo tax ma am fit dugg ci arène bi mais mais sama moroom moom ñu ngi si ñu ngi si mbapat bi kenn daal laa xam ne mun naa ko cee lim te wax dëgg fi yàlla mu ngi def ay mu ngi def ay preuve am si mbapat bi muy X9 waaw kooku bëri nañ mbapat waaw caaw waaw waaw kay bëri nañ waaw tournoi lañ tase sax waaw mu daan ma pare mu daan ma demi-finale waaw bëri naa ak euh, Boy Malika tamit Boy Malika tamit daan naa ko waaw waaw daan naa ko tournoi Kaaba waaw alaaji mbeex moo tëggoon làmb jooju noonu waaw donc Boy Malika nga fi bëreel daan ko si si mbër bu làmb ak ki xam ne moom mooy x mu daan la ñoom daal laa laa xam ni bëri naa ak ñoom mbabat ñu nekk ci ñu nekk ci arène bi ñu leen di bàyyi xel mais ñeneen ñi daal ñu ngi si mbabat bi ba léegi duggaguñ ci si arène bi ñu jël ñu naan euh, doomu jàmbur borom drapeau yi mais doomu jàmbur li combat yi nga fa wax ni mbapat foo war a jëlee drapeau yooyu yëpp nag wala da nga am copain téer wala lan la. <laughs> non aw ma copain mais mais dañ ko fooyee nag fooyee nañ làmb fooyee nañ làmb bu baax a baax a baax te wax dëgg fa yàlla def nañ ci lañ ci mën te yàlla tamit suturaal nañu si yàlla suturaal nañu si ba nga xamante ni ba ci avant maa ñëw ci arène bi rek damaa tegale ay victoire yu bari si mbabat nome bi sax taxu koo bari mais tournoi yi de moom tournoi yi moom moo ëpp nome yi fuuf sax te tegale naa si bu baax a baax a baax loolu moo gën a yokk tax nag boo yi am confiance boobu noonu ñëw ne ma kaay. da ngay foo jëlee drapeau drapeau yu bëri foo ko jëlee. waaw waaw xam nga tournoi xam nga tournoi boo jëlee boo jëlee di nga am drapeau nome it boo daane di nga am drapeau yooyu noonu nag bu dajaloo day xaw a bari waaw. mu ngi doon SBT Média seen émission seetu mbër ñu seet si ki xam se ni moom mooy doomu Jaambur bokk ci làmb donc mënaguñ ñëw si combat yi combat yi mujj a jógee mais dañ koy topp waxtaane carrière bi macha allah donc ñu ñëw si premier combat arène yaakaar la woon. waaw ànd maag ànd bu Songaan Gueye waaw Bargny sëñ Modou Niang waaw làmb banlieue nee na ba boo tuuti te sedd moo gën boobu rëy tey métti de wax na dëgg de ndax mbëri ndaw yi boo xoolee ñi fi nekk ñëpp tey champion yi kenn ku nekk bokk na si ñi la njëkk tëgg macha allah di ko ñaanu baax a baax sa diggante ànd nga jëlee fa nag waaw ma maa ko daan waaw ma daan ko sama deuxième combat ma ñu jox ma Boy Ndiaye bu moot fa dam waaw ma daan ko waaw jox la kan troisième combat ñu jox ma Mour fay bu bu bàyyi si xel waaw ma daan ko yaram neexut de nu mu demee ah waaw gis nga noonu la dañuy jàng rek. quatrième combat quatrième combat ñu jox ma Zanot Zaki bu Géejawaay Ndiaga Sarr si jour combat bala gay Modou bi ma daan ko waaw. marqué 4 combats 4 waaw loolu daal yàlla def na ko. waaw loolu moom yàlla def na ko. doomu doomu nan ngay amee chance bëri ci journée bu toll noonu Balla Gaye Modou ah ba pare mu nekk sa quatrième combat nga marqué quatre victoire ba pare ci moment boobu noonu coow laa mu topp lan moo waral. waa xëy na sens sens bokk na si ba pare ak taamu tamit taamu tamit bokk na si. waaw même pas man sax. mais mais nag ay tapel lañ dañuy ruux bu baax a baax a baax dañuy ruux bu baax a baax wax dëgg fa yàlla. parce que léegi lamb ji actuellement nii booy da def deux combats deux victoires trois combats trois victoires rek coono topp la. waaw mais gars yi gars yi daf see bëri ñoo xamante ni ay ragal lañ. bi may tegalee tegaleeg samay combat di daan dañuy wër na yàlla dañuy dox ay combat yoo xamante ni ay combat yu neex la waroon a doon ay combat ñoo xamante ni ñu ñu dégg lañ dañuy dem di leen seeti mais gars yëpp dañuy roox waaw bu ñu déggee turu doomu jaamu bi dañ koy dañuy bañ dañuy jël avance ba si biir sax daw. cinquième combat. cinquième combat ma am Aba. Aba bu mën Mbaye jour combat Moussa Ndoye Garga bi ma ñàkk par décision arbitre waaw mu nekk première défaite. waaw affaire de protège dents la affaire làmb ji sax affaire defaat nañ ko sans verdict waaw ndax daan naa ko ci biir gi daan naa ko ci kombaa bi mais arbitre sifflewul dafa ne dañoo génn saako yi après ñu commencé ñu bëre ñu bëre làmb ju metti ma am proté ma am problème protège dents sama protège dents moo waddoon wadd deux fois ñu jox ma ci avertissement loolu moo ma ñàkkaloo combat affaire ñu bëre ba temps bi jeex moom tamit mu ñëw téye boppam ndax moo ma jiitu ci làmb moo mag ci làmb waaw mais premier site bi nga xam ne daan nga ko pourquoi bi nga defee recours joxuñu la. waaw ndax ndax boobu dafa contact dafa am premier site mu am jël arbitre bi joxul victoire mu ngeen kon ne même bu la sa adversaire daanee am nga droit yoon may la. xam xam bi may lijjanti loolu dafa trop tard bi may dafa trop tard ndax biñ ñëwee biñ ñëwee si suba si damaa dem lundi bi dem naa CNG pour lijjanti loolu mais après gars yi may awma kii amuñu kii amuñu woon temps buñ sax waxee ak man ba pare. doon ma lijjantiloo ay yenn yenn vidéo yi yenn sites yi affaire yu demee noonu loolu moo xawoon a jël temps affaire yooyu mais après bi ñu demee ba xoolaat ba ci biir tamit après dañ koo annule def ko sans verdict. sixième combat. sixième combat ma am fils de Zallo. waaw fils de dugg si Bawol Bawol dugg si Bawol Bawol yi waaw am ngëm-ngëm gu toll ni maa leen mën waaw ñu jox ma ko ma ñàkk par quatre appui waaw. deux waaw non benn defet benn ah, sans verdict mais d'accord mais comme bee at joxoon arbitre defet la joxoon rek nga ñibbee ak moom jooy après gars yi ki kii naa la ñi naan décourage naa nga waaw waaw ba tey ma am deux défaites sa septième combat am Mame Balla Mame numéro deux waaw ñépp ñëpp waaw ñëpp ne woon bu ma ko jël nag ñëpp ñëpp dañoo waxoon bu ma ko jël ndax du ci dara est jël Mame xama xamuma ko xamuma ko ñaari combat xamuma ko sax wallaahi xaw ma sax xaw ma ci moom dara période boobu noonu xaw ma ci moom dara période boobu bëggoon a bëree rek bëggoon a bëri kese la mais du dara xaw ma ci moom dara. sa diggante mooy troisième combat boobu deux deux combats deux victoires. waaw léegi man dama léegi ñun dañoo bëri woon ci sama tur sama tur lañ bëri woon bu ma ko daanoon du ma yóbbu fen yàlla def ma ñàkk même chose par quatre appuis comme noonu rek. Mame Balla état bi nga indi bi ko maa amul kenn ku nekk ci moom kuy jël sa xaar di ko teg ci waaw amul est-ce que nekkul extra confiance bu ëpp nekkul combat moo tax. non xëy na war a daanu la sax wala ñàkk la rek mais lépp lu mu laaj si combat bi rek def naa ko te moom si jëm boppam moom moom sax gëmul woon mun na am loolu ci man mais xam jour bi nga waree ñàkk moom cuune ngay doon. ba bu combat boobu maam ak poids bi nga ci indi ak maam Baal ni sa kanam est-ce que bi jaadu na woon bi arbitre sifflé ngeen jàppante. non damaa def dama def faute dama def faute ndax waruma woon jàpp. contact bi moo ko arrangé. moo tax bi arbitre sifflé mu jege la da ngaa sànni mu daw ngeen jàppante. waaw te pourtant mën naa xeex mën naa xeex bu baax a baax a baax mais mais duma ko duma ko jiital chaque jour man bëre bi laay bëgg loolu moo tax moom bi mu dawee ñëw indi jàppante bi man tamit ma fekk si ko si jàppante bi. yàlla xam na ni maa ko dàq xeex foofu wallaahi foofu sax duma ma sax moromam ci xeex wallaahi maa ko dàq xeex. septième sama septième combat ma am jawdin waaw waalo waalo waaw ñu bëri nag dañ koo joxoon favori non c'est huitième combat waaw huitième combat bi huitième combat laam jawdin ñu bari jox ko favori Souleymane Diaw waalo waalo waaw mu ngi noonu léegi loolu moo loolu moo taxoon combat bi xaw a bàkk lool loolu moo taxoon combat xaw a métti sama côté ndax koo wax ñu ne la doomu mbër la te moom tamit am na lu mu def ndax man bi may bëri sama deuxième combat moom moo bëri grand combat bi jour boobu noonu moom jawdin dem làmb dox ban waaw waaw ñu sant waaw ba pare ñu ci sant nag ñu ci sant yàlla bu baax a baax a baax ndax loolu noonu daf ñuy won ni xëy na teg nañ pas waaw ñu dem entraîné li ñu war a entraîné dem yàlla may ñu ndam waaw. nga génn nga génn nga génne waxuma la nga génne école Balla gay génne waalo ba pare duggaat école Balla Gaye duggaat waalo ci biir encore joxaan saa waalo. waaw ñàkk adversaire saa waalo sax man sa signature bu neex bi ngeen def euh, arène nationale yaa yaa ne kii noonu yakkan saa yëngal stade bi lu nekk ngeen waxate ko sama xol sedd guy ma naan combat bi mooy dàq ci année da ngaa ruux ah, yàq la yàq der la non doomu jaamul bàyyi li nga wax tapet moo gën a tapet ci mbër yi Sa du muy duggee seen écrit jàpp doomu waalo booy waalo xamu nu mu ko def noonu ba dam loxo bi xamu nu ko waaw léegi moom dafa xamoon li koy xaar ndax man tamit damaa ñëwoon jël si dama ñëwoon jël si li ma moom est que nekkul est-ce que nekkul booy waalo moo tax nga mujj delloo avance bi ruux moom si jëm boppam boobu moo nekk deuxième bo moom si jëm boppam moo nekk deuxième adversaire yi bu ñu ma doxal ñàkk adversaire moo tax ma jël Saa Waalo. combat bi sa diggante ak Yekini Saa bi su ko mu yàqu loolu laa bëgg mu leer dama bëgg. maa ngi ay audio. bañ fexeel ba booy bul delloo avance yàlla mi ma tim xam na ni biñ ko defee ci guddi gi yeggagul këram sax la woo promoteur bi ne ko bu fekkee ne mën nga koo def grand combat déwén nga def ko. mais instant bi man mënumaa bëri le 16 wallaahi lazim promoteur bi moomu vocal di ma ko wax. signature dox ba bëgg a dóorante bëgg xeex lu nekk ngeen waxante ko. man bi ma yegsee man bi ma yegsee ñu bari ñu bëri dañ ma ne am nga combat ndax kii ni muy waxee dafa décidé yu demee noonu man ci guddi gi nalawaguma sax ma jot xibaar boobu noonu ñu ne ma daw na. wallaahi lazim moom moo daw. combat bi si wala yàqu rek nag. tapet la Yatenza moo gën a tapet wallaahi lazim li mu daj si combat bi moo waalo bi. wallaahi bu ñëwoon lu ko raw lay daj. moom parcelle ngay waxal de. parcelle ngay waxal de. man parcelle laa bëgg a duggaat sax nag. copain copain de Mer ak kii ak euh, nu mu euh, de Mer moomu nañ ma ko jox. saa xam nañ ma jox Brise de bu Dóor waar bu numéro un de. nañ kuñ ma jox baax na l'essentiel mooy maa ngi def samay preuve nañ ma jox koo xam nañ ma jox koo xam ne ñëpp ko fi bàyyi. saa dafa daw. comme yaa ko wax ne boo ko ko ne yaa ne yekkan saa moo daw combat yaa ko wax man dafa daw da ngaa bëgg jox la al man Albouri laa soxla woon sax nag Albouri laa soxla woon Albouri laa soxla woon du dara borom jolof du dara lu ma ëppale borom du dara lu ma du dara ci làmb loo xam ne mën na ko te mënuma ko amul yàlla xam na ni ku dul moom sax ku ku dul moom sax ragaluma ko. bàyyi ku yàq xam ne ko def du fii de. du fii day xaar lu bari doole sax. ah Albouri nañ ko jox mbëri. ay mbër joxaguñ ko mbër nañ ko jox mbëri yi nañ ko jox ay moroomam ñun ñooy moroomam ñun ñii ñun ñooy ay moromam nañ ko jox ay moroomam SBT Média seen émission Sen Mbeur dégg ngeen fa tam toll macha allah mais ñu jeexalee ko benn combat génn ci carrière bi donc ñëw ci si ëllëgu làmbam donc xam naa at nu mu tudd ëllëgu xam naa Alboury mi xam naa moom ñàkk na moom dina boole si ñi mu tudd mais ñu ñëw sa diggante ak euh, saa waalo nga génn waalo génn école Balla Gaye pare duggaat fa la ma waral. waaw mooy mooy li ma wax sànq ñàkk adversaire ndax dox ndax ndax dox nañ ma doxal nañ ma ñaari ñaari komba yoo xamante ni dañuy jël combat bi ba ci biir ñu bàyyi te man tamit bëggoon naa tëjee saison bi ak ak ak victoire ñu proposé ma ko moo tax ma jël ko mais ci làmb nekkul dara lu war a tax ma jël Saa Waalo defe mais maa ko ëpp combat maa ko ëpp ay victoire maa combat maa ko ëpp victoire te te làmb man la gën a xam que moom. combat bi mobilisation parce que sa combat yi bëri promoteur yi bëri na lay bëgg tëgg mais fornage yooyu bëri dañ naan dañ naan amoo mbooloo waaw waa ñi waa ñenn ñi nga xamante ni xëy na yéenewuñ doomu jàmbur dem ci kanam loolu ñooñu la ñooñ ñooy wër di wax amuma mbooloo te bu ma amee bu ma amee mbooloo ak bu ma amul mbooloo la 16 bi wane na ko waaw lépp rek waa noonu la demee mbooloo mi mbooloo mbër mi andi mbooloo yàlla xam nañu te dañuy indi leneen lu leneen lu dul lii hmm? dañuy indi leneen lu dul lii lépp rek mafia yi la nag mafia au calme bi mafia rond point bi mafia ngàcc bi mafia ngàcc bi aada waa fu waa fuur ba waa ay see penc bi waaw ñooñu ñooñu ñoo defar làmb ji ak Baye bi maa ngi moom yàgg na du tey mais mais si si si mobilisation bi génne ci génne ci lu am doole génne ci lu am doole mais ñun li ñu yóbbu nii sax xeem nañ ko lii sax du dara ci ñun lii du dara ci ñun bu ñu amaatee combat la ñuy xam. su ma la déggee su ma déggee mobilisation bi autorités yi kon jàpp nañ ci. mo autorités yi kenn jàpp si. autorités yi mbooloo mu ko mën a indee nga ne si. yàlla xam na ne autorités yi kenn jàpp si. autorités yi kenn jàpp si mooy li ma wax mafia yi ma tudd fii ñooñu ñoo defar combat bi ay booy yu tuuti ay booy yu ndaw booy yu amul vingt ans. ñoo defar làmb ji ñoom ñooy dem seen i seeni seen ket fii di jaay seen i bagage di jaay seeni i affaire jaay feeraay di ko def ci làmb ji amul autorité bu ma mun amul autorité bu mun a taxaw ne jàppale naa doomu jàmbur amul képp ku ko def rek na génn wax doomu jàmbur donc tey làmb ngay def mais yóbbuwoo sa drapeau donc drapeau caaro ngay représenté nga ne autorité nekk caaro yëpp kenn jàppaloo la doomu jàmm maa déggul ak mbooloo mu bëri mi ngi andi instant. kenn jàppalewu ma kenn jàppalewu ma amul autorité bu ma jàppale te man Caaroy laa dëkk man bu ma man bu ma génnee di dem drapeau Caaroy laay laay laay yóbbaale drapeau Caaroy laay yëkkati autorité yi ñoo war a génn jàppale seen doom ndax man awma lu dul Caaroy yi fii laa juddoo fii laa màggee fii laa nekkee mbër te fii laa bëgg a nekkee champion kon dañoo war a génn jàppale ma. amul autorité bu ma jàppale euh, mbooloo mi moom bu fekkee benn autorité jàpp si mafia bi kese ñoo ko réglé kon moom bu autorité yi jàppee wax dëgg yàlla waxuma la grand combat billaahi wallaahi ay xale yu ndaw rek laa yor ay xale yu ndaw yoo xamante ni wallaahi lazim bu combat bi taxawee dañuy mujj di def seeni i cent franc seen i fukki pour am lu ñu jëndee billet ay xale yu ndaw yoo xam ne liggéeyuñ defuñu dara dañuy dañoo toll si jàng di jàng te kuy jàng ku nekk xam na ni yow miy jàng mënoo am dara ay 100 francs yi seen fii dem la ñuy dajale aw ma wallaahi la si maa ngi si 9 combats gisaguma ku ma jëndal benn billet autorité bu ma jëndal benn billet amaguma ko mooy mooy chaque jour sama mafia yi rek te mafia yi amul ku ci am 25 ans amul ñoom ñoo ci nekk ñooy ñooy kërti kërti ñooy jug ñooy dem ñooy ñëw. billaahi léegi neuf combats euh, six benn match nul benn sans verdict ak deux défaites. waaw loolu mooy sama palmarès pour les ci li waaw te loolu moo am sax. waaw keneen ku ma daan keneen ku ma daan saa bi saa verdi bi laay laay. ku ma daan. na na génn wax ko est-ce que. sans verdict sans verdict xanaa man télé laay wax ñemewu maa wax loo xamante ni laajal sama ménager as as Cissé as Cissé moo yor PV. parce que tey na ma naa ñëw mu jox ma am lu ma jox si sama wàll ci tabaski bi waaw moom moom moom moom sama grand bu baax la. waaw dëgg fa daf si jàpp bu baax a baax as deseelu ma dara. instant bii nii deselu ma dara dese wallaahi lazim fu nekk xaar loolu man maa koy liggéey xaar loolu maa koy liggéey ma ci loxoom la nekk Franc mi xew nii macha allah ci loxoom la nekk fi noonu ni as moom macha allah. <laughs> waaw waaw macha allah moom. ba pare te doomu jaam mi nga xamante ni léegi mu xew si si loxoom la nekk moom tamit. xewagoo nii. non xewaguma. nii nga ne xew. wallaahi li ma war a def du sax fàtte naa ko yàlla xam ne démb damaa dem entraînement. adversaire foo jëm ginnaaw bi nga jógee si diggante ak Saa Waalo waaw waxal say adversaire waxal say morom la ñoo xam ne boo ko waxee dañuy xam ne làmb ju jaar la làmb yu neex la bu wax ay paa nag <laughs> waaw mais xam ñun tey jii mooy li ma wax bi may doog a dugg ci làmb samay moroom lañ ma jox lu mu bon bon bon bon maa ngi commencé def dara mais kenn mënul jeexal say moroom tamit waaw te maa ngi ci cinq bëgg naa dem diis te pour ma dem 10 foog ñu jox ma ki yem ci diis bi pour ma mën a dem diis. ñu nekk ñu fa nekk diis tàppetuma de mbër yee gën a tàppet si mbër yee gën a tàppet loo gis. billaahi mais comme caatu montagne làmb la sama diggante ak moom. bébé julle laal de bébé julle. sorxo caatu montagne mi nga xamante ni digganteem ak doomu yoof baara tontu digganteem ak teg soog barki démboo njaay baara tontu amee ñooñu ñooñu ak doomu jàmbur ñooñu ak doomu jàmbur duñ benn. doomu rek doomu jàmbur doomu jàmbur doomu jàmbur xoolul ñii sax billaay wallaay doomu jàmbur xoolul ñii. loo gëm la lu ma gëm la buñ ma seet woon tey ma fanaanoo avance bi aw ma problème boobu sax adversaire maa ngi nii pare na bu ko adversaire bu ko bu ko bu ko manager yi nangu nanguwee promoteur yi bëgg ko nangu nangu na maa ngi nii pare na moom laa xaar. dégg naa si booy kenn ku naan Bébé Diouldé. Bébé Diouldé waaw. maa ko gën a mer fuuf heure bi waroon naa fekk heure bi waroon ñuy wax doomu jaamur ca kaw kaw. beneen combat nomé la bëre arène fële euh, dëkk ba 20 victoire. waaw ah. arène fii tegal la 10 combats 10 victoire. amul benn problème am xaw a yéeg xaw a ah, na ñëw ma jékkali ko. dafay na ñëw ma jékkali ko. làmb ju neex la man ak moom ndax adversaire de taille la adversaire de taille la dañoo tolloo te maa ko dàq bëri junni yoon. d'accord ma loolu. junni yoon laa ko dàq. d'accord non Bébé Diouldé d'accord ma loolu. yàlla xam na ni du ma moromam sax si bëre si bëri du ma sax moroomam te te bu weddee li may wax na jël avance bi Bébé Diouldé avance bi.